ñuy nuyu mbokki jullit yëpp mbokki taalib yëpp di ñaan sunu kàddu fekk leen ci jàmm ak tawféex di siyaara soxna maam xari Mbàkke Murtada di ñaan sunu kàddu fekk ko ci jàmm soxna moomi Kebe euh, di siyaara mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp euh, ñu dellu siwaat nin ko baaxoo def tey nag dañoo bëgg a def benn jàngat boo xamante ni bu gàtt la jëmale ko ci jëmm ju tedd muy sëriñ Abdul Karim Mbàkke ibnu Cheikh Mamadou Fadal di ñaan yal na ko yàlla may aw fan wu gudd ak wér ak ngërëmal sëñ Touba euh, jëf ju am solo ji nga xam ne fan yi daf koo def te jullit boo xamante ni sa mi ngi dund wala soxol xol makaarimal axlaa jooju nga xam ne mi ngi koy dund mi ngi ci sa xol di nga rafetlu jëf ji waaye doo yem ci rafetlu ko rek waaye danga ñaan waaye danga fexe tamit nu saw ñaq dugg ci lii nga xam ne daf koy def te boo wëree loolu lépp lii muy def ak lii mu wax ak lii muy woote doo yëg dara dara dara loo xamante ni intérêt bu àddunaa nga ci waaye li nga ciy yëg daal mooy nit ku xolam di tund nit koo xamante ni yàlla daf koo feesal jëmmi yërmande ci moom puus-puus euh, yi mu wax ne daf koy woo jël daf ko bëgg ñu dajale ko mu jox ko ñi nga xam ne yàlla def leen a nattu ba amuñu ay tànk yu nu mën a doxe wala seeni doxin yéex mu yëg ne ñoom puus-puus yi moo gën ci ñoom mu leen koy wutali loola nag def ko jël dugal ko ci liggéeyab sëñ Touba ak jikkoy sëñ Touba ak sëriñ fallu eh, sëñ Fallou daana wax ne jaamu yàlla ci jaami yàlla yi yàlla ci jaami yàlla xam ngeen ne nit ki nga xam ne danga koo romb yow nga yor ngay dox tiim ko moom muy dat ngu wala nga romb ko mu toog ci puus-puusam wala nga romb ko mu yori beekem wala nga romb ko yëg ne yaa ko gën a gaaw dox rek war naa am loo ci jànge ndax yàlla mi nga xam ne moo la rawatina nga yor sa oto romb ko te moom lan lay def am na ci ñoo xamante ni fàttaliku ko gi mu leen fàttaliku rek daw leen di siwaat ndax eh, am na lu leen rëccoon loo xam nit ñi beddeeku gi leen beddeekoon waaye yëg nañ ne moom siwaat na leen ba aj leen fi mu toll ci boppam. fi mu teg boppam rek fa la leen teg xam ne yàlla mi nga xam ne mooy def nattu mooy teraal yàlla mi nga xam ne mooy lu nekk ci sababam lay amee. lii sababub yàlla la waaye lam ci yëge mooy yëg ni ñii seeni cër ñoo am laago waaye seen xol dara sikku ci xol yu sell la mooy xalbin salim sëñ Abdou Karim nag euh, daanaka ku xool ay jikkoom ak fi mu bokk da mën a xam ne jikko nii rek la war a mar a mel nii rek la war a jëfee nit koo xamante ni alhabdu abdul karim abdu mooy jaamu yàlla alkarim bu tedd bi moom ci boppam bi mu xamee lool mu bokk ci Serigne Fallou bokk ci njabootu Serigne Touba Serigne Fallou yaakaar naa ne ku nekk daana dégg mu ne sama yéene ñaaw te sama euh, te ngottuma ngottuma nit kuy xalaat di xalaat soxna Fatou Dia daana wax naa xalaat ci xol ba mu yàgg mu jariñ sa nga xelu mu ne tànnal wurus wa cee ngalam xànjar te leer du ko tee war euh, maanaam nit ki daa war di xalaat euh, ci lay xalaate ba. mu xam ne ak baax rek moo war a nekk ci moom ak guddi ak pëccëgam ay kàddoom maanaam nit koo xamante ni ku fonk doom aadama moom ci sëñ Abdou Karim nga koy gis nit koo xam doo ko gis mu gëdd nit doo gis mu jànn nit doo ko gis mu xarab nit doo ko gis mu doyadil nit ñi nu jàpp ne sax ci façon yi nga xam ne li lay won teddangaam rek ñu mel nii am na ci ñoo xam bu nu ëgsee sax ci kilifa gu mel ni dañ leen di wax dem leen toog wala xaar leen wala nangam bu leen àgg sëñ bi nga xam ne du am benn accès pour ëgsi ci sëriñ bi waaye moom ñii ñu mel nii nga xam ne ay beeka la ñuy yor ay puus-puus ñoo gën a am accès ci sëriñ bi ñi xam sëriñ bi xam nan ko ne saa bu toogee yàlla def ne ubbiwul ngir nit ñi xër gin ko xër dana laaj sa ñi nga xam ne yàlla def leen nattu ci nattu ñu ñàkk ba dikk di tàllal seen loxo di laaj ñooña lay gën a jox wàccuwaay dana ubu fatu ba du génn kenn du ko gis waaye ñooña lu mu fatu fatu dana yónnee ci ñoom ñu xool leen xam nan ñoo fa nekk ñu dindi ca mu dindi ne leen joxal leen ma ña ngàbb seen wër wërsëg ñëw di laaj sa mu ne nan ma jéggal ba beneen yoon dama xaw a xat loolu ku baax ak ku xam daraja yi lislaam xam daraja yi sëñ tubaa xam ne sëñ tubaa nag leen koy liggéeyal mooy wane ko wane ko wane sëñ tubaa mooy lan fexe ba kenn du xeebe sëñ tubaa ci yow ñépp nawe sëñ tubaa ci yow loolu mooy ay ngëneelam almakarima la xalaa nag karim nag mooy nit dañ koo wax borom xam ne wax nekk alkarim al akramu yooyu xeesu tedd nga la waaye dana wax ne karim moo gën a nekk tedd nga mooy nit koo xamante ni mën naa dindi dara ci poosam joxe ko li dindi dina am njariñ kam koy jox dina ko amal njariñ waaye alkarim moo mooy koo xamante ni li muy dindi du xam nu mu toll du xam ki koy jox du xam ki mu koy jox maanaam génne ci sa poos loo xamul nu mu toll ci lim ci bariwaay nga jox ko ko xamul loolu mooy alkarim loolu mooy sëñ Abdou Karim loolu nag li ko mën a def mooy al makaarim al axlaa mooy jikko ju tedd ju rafet yoo xamante ni ñi ko xam ñépp xam nañ sëñ Abdou Karim ne kenn du tudd nit ci wetam xanaa lu dul nga wax ca wax ju rafet muy ab jàmbur muy mbokkam muy nanga mbokkam moom kenn ñemewu ko tudd ci wax ab jàmbur it kenn ñemewu koo tudd bokk na ci li ko xam ba noppi nag doon taalibe Sëriñ Fàllu boo xamante ni ak woyefam ak baaxam jégg na dayo it koo xamante ni doy na sëkk ci Baay Faal yi yëpp wër nga xam ne ñu ci baree bari euh, fa mu leen fekkoon ak fi mu leen indi loolu woykat bi naa fa nga nu jëlee fa nga nu jëmee fa nga nu jëlee fa nga nu jëmee fa nga nu jëmee ko gën waaye loolu dafa mel ni woy wi firi sëñ Abdou Karim firi na ko kon ku mel nii nag bu dee jëf lu toll nii ci mu réew loo xam ne ñëpp ko bokk la mu tàllal kàddoom wax ko ne du lu ma beru rek di ko def waaye dama ko dugal ci liggéeyab sëriñ Muntaxa xam ne lu baax rek la bëgg du ma xalaat ndax man xalaatu sëriñ bi ci lay dox xalaatu sëriñ bi mooy lan mooy makaarimal axlaa mooy li nga yéene sa bopp nga yéene ko ñëpp tax mu ne lii xooluma ci kenn li lay wan ne la xooli nee na du ab jullit du tiijaan du murit du kenn ku ñëw te yàlla nattu la ci nga am jafe-jafe tànk yooyu mënoo ko boo ñëwee ñu jox la ko xanaa loolu rek doyoon na sëñ bi waaye mu ne ku koy jël si dinaa la defalaat weccet woo xamante ni dinaa ko dem joxaale la ko nga yóbbaale ko dolli kooku xanaa ji jikko mooy jikko ju tedd ji nga xam ne kenn mënta àgg ci ci côté nga xam ne lii rek doyoon na sëkk waaye nga ne dinaa jëlaat ci sama weccet joxaat leen ko ci loo xamante ni nangami junni nit nga am yéene mu doon ko ku ci nekk nga jox ko puus puus ba noppi te ki nga koy jox bëggoo koo xam sakku woo ñaanam sakku woo mu sant la waaye li nga sàkku daal mooy am ci ngërëmal sëñ Touba ak Serigne Mountakha mi nga xam ne ñooy liggéeyal sëñ Touba te nga nekk ci seen ron nga jàpp ci liggéey bi fi nga ci mane loolu nag lim ko def kenn xamul nu mu toll boo gisee nii ko nit ñi di wéree eh, dafa firiwaat béytu sëñ tu ba rek sa nafkin bi laa dara saa nafkin bi laa daral mooy njariñ lu àndut ak lor te wax dëgg yàlla séntu nañ ko ci doomi sëñ Fàllu doomi sëñ fallu séntu nañ ci njariñ ak lu àndut ak lor ndax sëñ Fàllu da ko wan réew mi te lii dafay tekki li sëñ Fàllu waxoon na maay Sénégal maay Sénégal mooy nga toog ba ci yàgg ngay xalaat Sénégal ci yenn jafe-jafe nekk yenn jafe-jafe la Sénégal lañuy nekk nga yëg ne jafe-jafe puus-puus de ñu yoru ci tànk de am na fi te ñoom de seen liggéey mooy ñenn ñi ñu ci néew dañuy tàllal seen loxo di laaj nga fexe ba ñoom fi ni am nekk waaye yu nu mën a nekk yu baax nga mën a jëlaat ci sa wër wërsëg jox leen loolu nag mooy jikko ju rafet mooy jikko yonante bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit ku la man ci xeex ku la man ci joxe bu ngeen xeexoon moo lay man ku la man ci xeex bu ngeen man moo lay yàlla nag su la teralee boole la ci juddu bu baax ci askan wu baax ni ko waxee yàlla boole lay tamit teral la sa jëmm ku ko xool xemmem ku mu doon jëmm ju macha allah ju baax yàlla defal la wala xadd karam naa ba ne aadama la ca des mooy jikko jikko yaa koy wutal sa bopp fexeel boo am jikko joo xamante ni nag ku jaxasoog yow dootu la mën a bàyyi loolu jikkoom la ñi ko xam ñëpp xam nañ ko lii nag day loo xamante ni moom ci boppam mi koy def daf koy def rek ngir yàlla loola moo tax sax ñu yëkkati kàddu yi jëmale ko ci moom ndax xam na ne defu ko ngir wut ci dara waaye daf koo def ngir yàlla lu muy def ngir yàlla nag ku ko mën a yaatal ngir nit ñi xam ne yàllaa tax mu koy def ak defin woowa loola ñëpp moo tax loolu moo ci sunu warugar moo tax ñu yëkkati kàddu yi waaye yëkkatiwuñ ko ngir di ci wax jëme ko ci moom ngir dara ndax li nu séq ak moom ak li mu séq ak ñun ak jàpp gi mu jàpp ci taalibeb Serigne Touba fonkal nu boppam teg nu ni nga xam ne daanaka ku dikk da ngay jàpp ne yaa ëpp wàccuwaay ci moom keneen ndax ñépp la fonk koo xam ne jataayam lu muy yàgg-yàgg daanaka dina toog di jànkoonteel ay mettit ak lor yoo xam ne ngir jariñ nit ñi loolu nag mooy mooy mooy makkaarima axlaaq koo xam ne di nga jànkoonteel ak i lor ak i mettit ngir jariñ nit ñi koo xam mën ngaa xëy toog daanaka ba jant bi so ngir ittee nit ñi ki kii yonante bi salaa salaam dafa waxoon ne koo xamante ni itte woowoo mbiri nit ñi bokkoo ci ñun kon loolu day waral na moom bokk na ci ñooñu yonante bi salaa salaam ndax yonante bi de daana xool woy ñàkk yi ak woy laago yi ak woy kii mu leen di jox ak di leen waxtaanal ak di bég ñoom di belli kanamam sa ñëpp boo gisee daanaka booy dikk ci moom sax la ngay njëkk a gis muy kanam gu belleeku gu belleeku nag loola dafay dafa baax ci nit nit kuy laaj ak nit kuy ñëw kanam gi nga koy terale ak gi nga koy gàttandoo mooy kanam belleer belleer mooy belleer kanam gu belleer kanam gu belleer mooy balaa ñëw nga wax nga ree nangam loolu nag wax dëgg yàlla xam nañ ko ci moom te alxuraan wax rek li ma xam rek lay seer wa ma sayyidnaa illaa bi ma alim na loolu yaakaar naa ne kenn du wax ne Saliou day def mu baalax wala mu nangam ñi ko xam yaakaar naa ku jonjowut ak moom ko yaay am ay kàddu yooyu nattable ci moom wala ñuy wax nga naat waaye boo jonjoog moom waxuma la ay waxtu waaye ay minute boo jonjoog moom di nga xam ne ku yàlla ku ku baax la koo xam ne lii mu def rek wane na na ku baax la ndax moom dollikuwut dara ci tur dollikuwut dara barki démb rek gis nañ ni mu tere terale Ahmed Khalifa Niass te jikkoy boppam rek la jikkoy boppam la la ko terale waaye ak jikkoy lislaam ak jikkoy mbokkoo loolu rek lañ def loolu nag ñu ngi koy ñaanal yàlla sagal ci sëñ Touba sagal ci sëñ Touba xam ne ku dugg Touba ganu sëñ Touba nga ganu sëñ Touba nag la yàlla ci fekk si ko Touba mooy teral ko teeru ko teral ko loolu lépp def na ko ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi ko liggéey bii muy liggéeyal sëñ Touba yàlla na ko yàlla may kattan ak wér mu yàgg koo liggéey ci jaam yi te nit ñi tamit wax dëgg yàlla fu ñu daw di fa jëm nii nag eh, ay ati ati at di nga daw di fa jëm seen njariñal bopp rek leen fa bàyyi nag seen njariñal bopp te wax dëgg yàlla nit ñi ñoo xam ne saa boo demee da nga naa fii xañ na dara dafay xew wala dara dafay nang nit ñi màbb fu nekk bu demoon ci àll ba gën a sori ne dafay dem tool ya xam ngeen ay tool kenn woowu fu kenn waaye bu ko demoon juróomi minute wala fukki minute ñëpp màbbu fekk ko fa lu ko waral saa nafxin bi laa dara kon yàlla nañ ko yàlla fayal liggéey bi muy liggéeyal sëriñ Touba di ko liggéeyal maamam di ko liggéeyal sëriñ Muntaxa di ko liggéeyal sëriñ Abo ci kër sëriñ Fàllu te ak baaxam gis ngeen li mu waxoon ci kas rajab gële paase ne dama bëgg képp ku mën a dem ci sëñ Abo nga dem fa ku fa mënta demit na nga jaar ci bisu màggal gi diggante kër sëñ Fàllu kër ak barabu sëñ Fàllu ak kër sëñ ak fi sëñ Abo nekk loola nag xam ngeen ne ku yéene mag yéene euh, nit ñi mucc mooy xalaat lu mel noonu ak tedd nga ju mel noonu di ko wax ci sa mbokk di ko wax ci sa mag di ko wax ci sa sëriñ loolu xol bu defaru rek moo ko man xol bu defaru xol bu defaru yal nañ ko yàlla fayal te yàggal ko fi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ak ñëpp di siyaara baax tamit sëriñ eh, soxna May laat moom sëriñ Abdou Karim moom it yàlla na ko fi yàlla yàggal ci kanamu waajur ak dong yi yëpp ñu ngi leen di ñaanal ala defal leen sutura ak teraanga wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Moussa moo nekkoon ci Baye Moussa ka moo nekkon ci maan bi soxna Awa Ndiaye moo doon réaliser émission bi soxna Khady Niang moo ko doon monter ñu jox leen daje ci yeneen i jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. murtajan minnatun